naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk mbokk yi Equivox yi nuyu naa leen siyaar leen ñaanal leen jàpp sàkku ko ci yéen leen wax ne nag tey ñu ngi lundi 5 juillet 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglekaay yi seetaan revue bi lan lañ fa indi tey après ñu dikkaat ak yéen si plateau bi lundi 5 juillet 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi du su làmb nag tey xëtam mu njëkk fa mu ca xëy génn fenn la maanaam Bombardier daal la ñëw wan ñu ko ci aw photo woo xam ne mu nga entraîné entraîné ba ñaq yor ab am dal di ko téye Bombardier nag yëglikaay bi ne daal soo bëggee dégg dëgg moom fi mu nekk nii moom forme bi mu nekkee forme bu doya doya doy waar la te yemu ca tamit confiance ba bëri na lool baanaam daal assurance tamit am na ko bu leera leer mel ni kon daal Bombardier fi mu nekk nii moom fa mu jëm diggante ak Balla Gaye 2 moom ragal nekku ca wala boo am lu mu cay tiit Bombardier daal maanaam mbiram fi mu nekk nii daal yëglikaay bi sax da koo jàppee koo xam ne daal ah loo ci mën a dégg daal ah pour danser moom ci moom du am maanaam daal Bombardier fi mu nekk nii pare dëgg-dëgg def na ko sunu làmb xëy tey andil ñu boobi xibaar ñaari ñi nga xam ne démb moom pare woon nañu ba arbitre soufflé seen diggante génn ca moo doon diggante Gris ak ak Abdou Diouf yëglikaay bi di suñu làmb nag nee na boo bëggee dëgg dëgg noom doole daal doxul jàmm ndax nag Abdou Diouf daa mel ni Gris da ko wan ne maa la gën a feete ndaw gën laa doon gune ëppale itam doole yi sunu làmb nag moo xëy tey waxe noonu ndax yëglikaay bi nee na ci 41 secondes daal boo xoolee ci la ko wan boppam daan ko jël bu leer ba toog ci kawam sunu làmb xëy na tey wan ñu ko keneen koo xam ne moo Gris dañoo bëgg écrit muy général général tam diggante mag Coly Faye numéro 2 bër ki démb la woon ci samedi ji fa nga xam ne moo doon ci arène national foofa tamit daal soo bëggee dégg dëgg moom loo ci mën a dégg général bu Fass daal yëg li bi ne na moom lañ déclaré vainqueur ne ko yaa daan waaye Coly moom maanaam ak ñamu àndal ñu ngay contesté décision ba nga xam ne moom la arbitre bi dal di jël yëglikaay bi suñu làmb moo xëy tey wax nu lu mel ni ki noonu beneen doomu caarooy boo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom muy bàyyi ma njoon maanaam moom tam fi mu nekk nii daal soo bëggee dégg dëgg daa mel ni ginnaaw diggante ma xoyantaan digganteem ak Zarko ñu foog ne ca lay yem bàyyi si ñawaat na beneen contrat wala beneen combat boo xam ne bu bees la digganteem ak Double Tyson yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci di xamal ne daal ku ñuy wax Ibou Keita moom moo fi sele boobu combat làmb xëy wax nu ko keneen koo xam ne ni ba tey doomi caaroy la di sambay fall wala sam production wala lig Nicolas numéro 2 sam daal yéegi likaay bi xamal nañu ne daal kuréel ga nga xam ne ni daal bokkoon na ca di couleur promoteur ya nga xam ne Pape Abdou Fall ko jiite sambay démissionné na génn na maanaam daal ne na bokkatu ca tey suba waxi noppi ndax nag bokk na ci loo xam ne daal naqare na ko ñàkk taxawu koo xam ne daal seetlu na ko ci ñoo xam ne ku ci xewle da cay sonn lool te bu xewlee maanaam taxawu loolu moo ñëw tey ci yëglikaay yi saam daal kon léegi génn na foofa ba set wecc leneen loo xam ne ni moom nit ñi daa mel ni ñu ngi koy rumandaat di ko wax muy combat boo xam ne daal moo war a dox ci diggante musaa Ndoye ak Zos combat de relance nag wala la yëglikaay bi ne na maanaam boobu combat daal boo bëggee dégg-dégg daal ah soc de relance daal la ko yëglikaay bi daal di tudde muy diggante Moussa Ndoye ak Zos ndax ñoom ñaar ku ci ne fi mu nekk nii daal boo bëggee dégg dëgg ci làmb moom la la topp ci ay défaite maanaam ba nga gëj am victoire mu ngi xaw a bëgg a yàgg yëglikaay bi wax xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci biir sunu làmb ñëw na tamit ci samedi ji nu génn fa nga xam ne moroon ca stadium Iba Mar Diop ak la fa mbay yi ki ni def organisé woon Cheikh Tidiane Niang ak ndongolo mel ni ki foofa moom maanaam bu bëggee dégg dëgg ki nga xam ne moo di Cheikh Tidiane Niang maanaam daal war na ndongolo ak mën a bëreem ak gaawaayam parce que nag yëglikaay bi xam nañu ne daal jël ba mu ko daan rëy na ba yegg ci lool moom sunu làmb moo xëy tey wax nu lu mel ni ki noonu waaye yemu ca de ba bët setee tamit ca di démb la nga xam ne moo fa amoon moo doon diggante mbay guy ak maam Balla yëglikaay bi moom moom sunu làmbay wax de ne na mbay guy gi dafa écrasé maam Balla ndax da koo yenu ba ca kaw dal di ko dóor ci suuf yëglikaay bi moo xëy tey di nu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëglikaay ba mu ngi nu koy wax moom sunu làmb ci làmbi simple ji tamit mel ni ki Ibou Ndiaye ubbali daal terrain gaal gi samedi daal daa mel ni daal victoire am na ko fa moom Ibou Ndiaye Obali yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu Doudou Sané tamit dëkk ba ñuy wax kalom ca sambi tamit daa mel ni lañ fa tegoon moom moo ca teg loxoom sunu làmb xëy yëgal ñu boobu xibaar nu fa jógee les arènes la ñuy dem nu fa demee tam lañ fay fekk mooy victoire Gris 2 ci diggante ak Abdou Diouf Gris moo xam ne daan na Abdou Diouf ba mu jaaxaan yëglikaay bi wan ñu ko ci aw photo yëglikaay bi di euh, les arènes nag moom nee na boo bëggee dégg-dégg daal combat ba matul sax une minute ndax 58 secondes daal ca la nu bëre mel ni ki nag Amadou Kati Diop ma nga xam ne ni moom moo yore écurie Fass Ndakaaru yore Gris te andi woon ko démb daal nee na woon daal maanaam de xaar kati nee na loolu moom nit xalaatu kon ko nee na kay la xale ba liggéey wala lan ko santoon rek moom la def ñëw appliqué won boppam ab Diouf xamal ko ne maa la gën a doon xale Aaron Sall di magoo Abdou Diouf di coach su écrit waalo moom mu nga xëy tamit di wax ci erreur ba nga xam ne moom la Abdou Diouf def keneen koo xam ne ni yëglikaay bi ñëw na ci moom muy Boy Naar mi ngeen xam nekkoon écrit Fass te léegi mu nekk ci réew mu nuy wax France ca Mantes-la-Jolie moom Boy Naar xëy na di wax maanaam day ay révélation daal la xëy tey xëyee ko ci les arènes maanaam daal nee na daal ni ñuy def maanaam daal lijjanti bi ñuy lijjanti ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue ak ki nga xam ne moo di Balla Gaye ngir retouram ci làmb ji daal Boy yaatoo yaatu séq na ko ak roq Roqaya Caam fa nga xam ne nii moom moo di ca réewum France ma nga xam ne ni moom moo di manto la jolie mel ni ki les arènes moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu ba tey yëglikaay bi dikkaat na ci biir daal ci ibu Ndiaye Obali mi nga xam ne daal war na caaka fay ca terrain gaal gi samedi ji passé daal ne ko ah liñ fi teg tey maa koy jël jël ko yóbbu ak Cheikh Tidiane ñaa moo xam ne tamit bu bëggee dégg dëgg daal war na boppam ndongoloo waneen wu doy doy waar bu nu continuer dem Equivox TV tamit loolu lan fay fekk ka nga xam ne nii moo di Cheikh Tidiane ñaa na mu daane ak ka nga xam ne nii moom moo di général Malick général bu Fass diggante ma kolifay fa nu mujje ak Abdou Diouf ak Giride ñu mujje ba ca mujj tamit moom moo di diggante mbay guy gi ak ka nga xam ne moo di Mame la borom top 5 mel ne que gàkku de tamit ak ka nga xam ne moo di booy Dakar combat bu metti woon la xeexa xeex ba ku ci ne say bët newi waaye gàkku de mu mujj yóbbu ndam la Ziza tamit daan fa Petit Niang mel ni kon daal weekend bi moom làmb ji sàjjoon na lool ba yegg ci lool waaye li am daal mooy boo bëggee dégg-dëgg daal loo ci mën a dégg daal làmb ji moom na mu yëngutoo woon àllarba ji ñu jëm tamit noonu lay yëngatuwaate ci arène nationale ak tournoi idaal ñi ngi ba nga xam ne nii daal xale yam ca nar a boole bëri na jërë ngeen jëf kon gars yi ah, dégg ngeen yëglikaay yi muy sunu làmb les arènes Equivox TV fu ci nekk lamb xëy na fa ci ay xibaar ci ay combat yu neexoon kon boo xam ne nii chargé woon na trop trop ak ay làmb waaye nag loolu moo lay wan ne lamb ji mu ngi dox ndax ku ne xam na ne samedi la mbir ya commencé wala avant samedi sax ajjuma ci ngoon defe naa ne jàkkaarloo amoon na fa nga xam ne moo doon ca Soumbédioune Baba Diaw amaloon ko mu doxoon ci diggante Zal Baol ak Caatu Yarax te ñoom ñaar ñu war a bëre samedi bii nu jëm. loolu amoon bët set jii nu génne di le 3 euh, stadium Iba Mar mbay Mbaye Yékini ñëw fa indi woon fa combat bu neex doxoon ci diggante ndongolo Lo ak Cheikh Tidiane Niang jamono jooja Sambay di promoteur nekkoon fa xa xam ne moroon ca arène nationale diggante Kulifay numéro 2 ak général bu Fass bët set dimanche tamit Assane bool production nekkoon stadium Iba Mar Diop ak Mbaye Gouy Gui maam Balla Gakou 2 Boy Dakar Siza ak Petit loolu tamit nekkoon lu neex waaye fa nga xam ne nii moom moo doon ci arène nationale tamit jëy production nekkoon fa ci diggante Abdou Diouf ak Giride foofa tamit neexoon lool mu mel ni kon làmb ji daal macha allah ci weekend bi yëngu woon dinañ ñëw ak yéen ci loolu léegi ci ay jàngat waaye fi ñu njëkkee ci yëglikaay yi mooy sunu làmb tey ah formu était salante ah confiance et assurance ngir bombardier waaw. loolu moom adversaire Bombardier plus dangereux que jamais maanaam daal Bombardier maanaam bu bëggee dégg dëgg daal yëglikaay bi dafa ñëw tey topp ko ci confiance bi muy dégager yaa ngi dégg forme bi assurance bi ak confiance bi mu nekkee loolu nag defe naa ne du gan si képp koo xam ne xam nga Bombardier ah. Bombardier mësul ñëw ci làmb wax dëgg yàlla bañ ko xamee ba tey ñun balaa ñoo yor micro xam nañ ko muy bëri di ko seetaan bi ñu yoree micro tamit gën koo jegeñ di seq ak moom ay interview yaa ngi dégg di weccoog moom ay kàddu gis nañ ne mosoo gis ci làmb Bombardier ñëw si làmb yaakaar naa yi ñuy seetaan nga gis ne kii bi muy ñëw ci làmb du confiance lay indi ak forme ak lu mu mënti doon loolu moom yàlla def na ko si moom kon defe naa ne lii moom du gan dafa fekk ne nag ah euh, combat bii moom yaakaar naa ne loo am ci forme wala loo am ci confiance ak loo am si doole ak loo liggéey ci xeex du doy digganteem ak Balla Gaye ndax combat revanche la parce que li tax mooy Balla daan bi ko Bombardier daanoon nangu ci moom roi des arènes ku ne xam ne ne neexu ko te Balla Gaye 2 may wax rek mbër la moo xam ne dafa bëgg di dafa bëgg di eh, maanaam daal di eh, ay défi bu ñu ko ko lancé da ko bëgg di lijjanti te lii defi la ci bàll Gaye de parce que ko xam ne daf la daan nangu ci yow roi des arènes dëgg roi des arènes ñaari yoon muy Bombardier nekk sa mag ah Balla tey lu mu mën a am daan Bombardier ko gënal kon defe naa moo tax ma ne combat bi ñoom ñaar kenn du ko ci caaxaane loolu la waaye mën a wax ku ci ne si ñoom ñaar Balla ma dem INSEP sa làqatu di liggéey xam na ni fi mu jëm du komba bu yomb Bombardier mi toog fi Sénégal tamit di liggéey laaxu ci buro xam xam ne ni jëmut ci lu yomb moo lay wan ne kon combat le 31 juillet boobu moom yàlla nañ ko fekkeeg bàkkante tal ko dina doon làmb ju neex a neex a ndax ñaari mbër yi ko seq ay ma fit laa leen tudde ay mbër lañ yoo xam ne tamit ay royukaay lañ ci xale yi nga xam ne ñu ngi ci làmb muy Balla muy Bombardier ndax Balla boo ko toppee 2005 ak léegi fi mu jaar ba nekk roi ba tey bu ñu doon nommé parmi les meilleurs lutteurs du Sénégal ci ñi dàq bëre ci génération yi fi nekk nii wala mbër yi fi nekk actuellement ah ñett yi de moom doo ko ci génne xaw ma premier lay jël wala deuxième waaye mënoo ko génne ci trois yi de moom loolu moom yàlla dogal na ko Bombardier tamit boo ko doon classé tamit da cay bokk parce que li tax mooy bu mënul woon a bëree du nekk roi des arènes yoon su mënul woon a bëri du daan Modou Lo du daan Balla Gaye te ñaar ñooñ ku leen daan ci làmb defe ne nu ma la mimal dara ñun déet na waaye nga daan la technicien des techniciens muy Tapha Guèye Bombardier daan na ko daan na zàllu te ñooñ c'est des fins techniciens kon moo lay wan ne combat bu neex moo nar a am incha allah rek yàlla nañ ko fekkete tal ko hélas bu ñu continuer ba tey ñëw ci biir yëglikaay bi suñu làmb dikkaat na ci li amoon démb arène nationale diggante Gris 2 ak Abdou Diouf waaw yëglikaay bi ne doole doxul jam wax na dëgg parce que bu ma xoolee image yi gis combat bi yaakaar naa ne léewtoo bi yàggul bu ñu dawee jàppante solante ci kaw tamit Gris da ko ëñ ëñ rek mu jóg mu am ko bu baax a baax teg ko poitrine am ak biiram daw taf ko daan ko jël bu kon moo lay wan ne foofu tamit vraiment jaay doole am na fa donte technicité bëree nga ca waaye loolu Gris 2 def boo euh, boo ko defee ci xam-xam ba pare doole koy eggale doolem la koy eggale parce que ëñ ba pare borom ay loxom naaw ci kaw dënnam naaw nga teg ko sa teg ko sa biir taf ko ci suuf ah loxo gauche bi ci suuf bu droite bi ca kaw nga dàq ko mu jaaxaan da ngay am doole ba pare door ko mën a def kon Gris 2 indi na doole si combat bi parce que da am ci lu mu jóge li mu jógeen mu doon regret koo daanoon tey nag macha allah relancé waat na carrière am duggaat na ci course bi parce que xale la benn defet la amagu te rëg-rëg moo ko daan te rëg-rëg itam yaakaar naa ne amagul defet ci làmb kon Gris 2 félicitations Abdou Diouf di courage a ah, ki la daan war na laa daan nag wax dëgg yàlla parce que koo xam ne bëri ngaa ki magam daan leen booba moom mu ngi ca daara jàng mu ñëw ci làmb dugg ci dugg ci ba a bëri ak yow ça veut dire kon c'est normal bu amee waaw loolu moom mooy li am bu nu continuer ba tey ci samedi ji arène national Sambay général bu fas Coly Faye foofu nag coow la bëri na fa parce que waa Caaro jàpp nañ ne Coly Faye daanuwut wala sax dafa daan yaa ngi dégg loo ci mën a dégg nag ndam la moom général la ko arbitre jox moo ko yóbbu fa nga xam ne di Fass ak Grand Dakar ndax ku ne xam ne nekk di Fass la moom général waaye doomu Grand Dakar la ñu koy félicité di encouragé Coly Faye ah di wax ne nag làmb moom saa yu ñu la loolu neexul comme li ñu koy wax rek ay règle la am nga droit bind sa ay li nga xam ne nii moom moo la naqari déposé ko au niveau du CNC ñoom ñu revoirat les vidéos buñ ko xoolee loo ci am bu dee say droit la ñu jox la ko buñ gisee ne tamit la ñu àtte mooy dëgg ñu bàyyi noonu mu continuer parce que loolu mooy sport bi dafa am ay règle kon loolu moo amoon ñuy féliciter Sambay itam di ko wax ne vraiment ah la mu def kera décoré Père Goré Ndiaye le grand photographe suñ papa jooju rafetlu nañ ko trop trop trop ndax Père Goré tey ci làmb mérito na lu ëpp loolu waaye sàmm wax dëgg yàlla loolu nga def marque de reconnaissance la te nit da ngay am reconnaissance dafa baax ci àddina nit ki da ngay am reconnaissance loolu dafa am solo sàmm mbay production waaye sàmm moom itam moom mi tëggoon laam jooju nag ah ne nañ daal tey ci li nu xëy gis mooy génn ci kuréelu promoteur bi xam ne moom la bokkoon te Pape Abdou jiite woon ko mu newoon seen président sàmm démissionné na ah démissionné na parce que xëy na bu ñu jàngatee ci liñ gis ci biir mooy taxawaay bi mu jàpp ne daal moom lañ koy taxawu neexu ko te ànd jaa jàpp ne warta demee noonu ah man nag bon lu ma si mën a wax du ma si sori li ma ci mën a wax daal mooy yéen ñëpp ay promoteur ngeen yéen ñi seq làmb ji ay promoteur ngeen bokk gis-gis nag c'est impossible mënta ne waaye li may wax rek mooy fexe leen ba bu muy ñaaw daal même bu ngeen bokkul gis-gis bokk ngeen xalaat bokk ngeen ay kuréel waaye su ma sañu daal seen diggante nay rafet parce que àddina amul solo te lépp lépp lépp après ci ay nett li lay mujje ndax yaakaar naa ne am nañu fi nekkoon daan tëgg làmb bàyyi nañu ko am na ñu fi nekkoon daan bëre bàyyi nañ ko am na ñu fi nekkoon daan woy am ñu fi nekkoon nag waala amoon na fi rek ngay dégg ah te bu fi amatulee leneen na fi amaat kon jamono ji muy am ngeen di ci toll fexe leen net li bi rafet ëllëg pour bu ngeen ko bàyyee mu lépp mën a nice man daal loolu laa leen di wax xaw ma nag lu indi problème wala lu tax nangam sangam mais l'essentiel que daal ñàkk a bokk gis-gis ak ñàkk a bokk xalaat terewul. seen diggante yi war a mën a rafet loolu laa ciy wax ci côté boobu bàyyi ma ñoon doomu caarooy la moom sa sañëwaat na beneen combat ginnaaw combat ma ko xoyantaan bëri ki dem ku ne gis na dëkkante ba nam mettee woon waaye amaat na beneen combat de mu ñettalu combat hélas double tey sa nag la jël bu kaw Kaolack waaw waaw bu Saalum jël na ko di Ibou nag moo tëgg boobu combat Zos ak Moussa Ndo yëglikaay bi ñëw na ci nee na combat boobu day organiser ko soog de relance waaw waaw waaw parce que loolu lay doon de ndax soog euh, ku ne xam na ne Zos mu mujj ci lam ciy defet la mujj yaakaar naa Siteu moo ko mujj daan ay defet la mujje parce que su ma juumulee euh, tournoi TNT ba mu duggoon defe naa ne amu ci sax ndam déedéet parce que yaakaar naa ñam ko seqal ñëpp dañ ko daan kon tey su ñëwaatee jógee ci jël Siteu ñàkkaat tey mu ñëwaat ba noonu na sax ci làmb moom parce que ko génne woon ci maanaam dafa bàyyi woon mais l'essentiel que bu gisaatee ne war na dikkaat muy dikkaat ba tax tey ñuy wax combat ak Moussa Ndoye relance lay doon pour moom mag yi eh, Zos nag di rakki Zos di Garga Mbossé daan na Moussa Ndoye avant ko Sa di ko daan bërki dem kon ñoom ñaar ñëpp combat boo xam ne bu ba amee ci ah, dina am ku mu arrangé ci kiy daan dina ko arrangé waaye ku daanu nag moom dina metti ci yow lool lool lool lool lool lool waaw parce que tamit xam naa ne ku ci daanu moom dana doy waar ci yow lool lool bu nu continuer dem les arènes ba tey lañ fay fekk mooy Gris de Abdou Diouf rek hmm? Gris 2 yëglikaay bi na relancé waat na de boppam ci 58 secondes waaw loolu moom am na parce que tamit ci defet la jógee woon su ñëwaatee Dame Abdou Diouf day relancé waat carrière am gën a positionné waat amaat ay adversaires yi nga xam ne nii ñoom ay adversaire de taille parce que tamit xale la boo xam ne tey xam naa ne écrit bi mu nekk muy Fass am nañ si moom yaakaar te moom tamit wax dëgg yàlla Gris du dara de demee wax dëgg yàlla xale la boo xam ne xale bu am discipline la bu fonk lu muy def la waaw ah, loolu moom dañ ko koy seeral ndax lu ñu xam na si moom te ñun duñ ne kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuñu ko jamais grand jamais mais wax dëgg yàlla il est serein dal na yaru na am na taalibi itam xam na lu muy wax te loolu dafa am solo ndax bu bëri wax ma mel ni Babacar xam la ngay wax da koy gën hélas mais Gris de moom vraiment ñu ngi koy féliciter Abdou Diouf itam ñu koy encourager di ko wax ne su ko neexoon du bëri ak Gris ndax la mu daan fas bëri na. lam fa daan ciy mbër bëri na moom Abdou tamit nekk na mbër moo xam ne vraiment ku ñàkk problème la ku neex deret la or làmb beneen Abdou Diouf ngay gis wax dëgg yàlla ku ñemee jàmm santé macha allah nekk nit koo xam ne nii borom baax la di ko wax ne ko sport la ah. xale bu mag moo gis mu ne ci sport suy génn ay rakamay ay rakamay ñëw génne ko parce que loolu la rek bon mais moom itam carrière am jeexagul day liggéeyaati rek kese làmb la bu fekkente ne euh, bëgg na continuer day yokkaat liggéeyam rek waaw. amul kati Diop ak Ron wax nañ kati mooy Ron Giri 2 Ron mooy Ron Abdou Diouf kati nee na amuloon pas de quoi question de d'entendre quoi amuloon maanaam de xaar daal xalaatuñ ko woon waaw parce que tamit Giri 2 xaar du woon forum ci combat bi ndax defe naa comme yow yaay jeune yaay jógee ci defet yaa bëgg am loo wane li lay wan mooy nga ñëw teg ci birig jéem a xool noo koy defe waaye boo koy def nag danga koy teg ci yoon waaye daa mel ni teg na ko ci yoon Ron tamit ñëw na ci erreur Abdou Diouf làmb moom ko amul làmb ji ne na ah comment Balla Gaye 2 et Gaston prépare mon retour ni ñuy def pour ni ñuy préparer retour am ah waaw ci nga bokk de ci làmb ji waaw yow yi xëy na yaa xëyoon benn moment làmb ji xaw a metti ci yow nga dem Europe toog di liggéey sa liggéey loolu nag mooy sport boo xamatul fi nga jëm dangay ngay dellu fa nga jóge mais boo liggéeyaatee ba gëm ne war ngaa dikkaat tamit làmb jaa ngi nii ba tey te Gaston Mbengue moom mu nga xam ne bu fekkee ne dafay xool nu muy def pour nga dikkaat moom bu dikkee xam naa dina utal adversaire bi nga xam ne moom nga méngul nga bëri parce que Gaston tamit loolu muy def am na solo vraiment mbër yoo xam ne tey dañuy am kii parce que bu ñuy wax Zos Gaston ku ne xam ne bëgg na moom adversaire Issa Pouye Gaston ko jox adversaire doonte daa ñàkk Boy Naar mi tamit ci la bokk kon loolu tamit dañ koy lu du nuy suñu papa jooju Gaston Mbengue di nuyu doomu Makan di nuyu waa Gaston production yëpp aussitôt bu ñu continuer ci biir yëglekaay bi lambi simple euh, kii nga wala la balaa lambi simple bi ki nga xam ne nii moom moo di Cheikh Tidiane Niang tamit li mu defanteeg ndongoloo bari ki dem jëli bu rëy la ko daan waaw loolu moom lu am la kon ñu koy félicité moom Cheikh Tidiane ku jara bàyyi xel la si làmb Cheikh Tidiane ñaa di félicité mbay yii ki ni mi tëggoon làmb ji mais tamit di ko félicité mais di félicité sunu jigéen pël bu rafet mi nga xam ne moom la tuddee woon drapeau loobu yoof ak ki nga xam ne nii moom moo di xale bële waaye waaye tur ba réer na ma waaye daal loo ci mën a dégg daal euh, ak càndum 2 waaw càndum 2 moom moo jël drapeau pël bu rafet kon can càndum 2 ñu ngi koy félicité di encouragé ki nga xam ne ni moom moo di loobu yoof mais loo ci mën a dégg daal ah vraiment pël bu rafet loolu ñu ko defal bërki dem mérito na ko parce que tamit jigéen la joo xam ne mu ngi sonn ci làmb démb ci dimanche yi tamit mbay guy gi moom moo dikk wane boppam diggante ak maam Balla ci loo xam ne wax dëgg yàlla ah wane na boppam parce que tamit bon yàgg nay wax ci ay communication am que ni su ma ko jàppee su ma ko jàppee la preuve bi ñu dawee mbay bi mu day wuti ay tànk maam Balla bañ na ko ñu jàppante jàppante bu yàgg ba gàllaaj yi am arbitre atte ñu dikkaat mbay wutaat loolu amu ko ñu jàppantewaat mbay tëggi gàllaaji sànni mais nag bañ jàppantewaat seen dernier jàppante dëgg yàlla mbay ba mu amee li bi loxoom duggee la wan maam baal ne ku ma la ëpp doole te effectivement ndax ku ëppul doo ko buddi di ko dóor si suuf te da koo buddi dóor ko si suuf kon mbay guy gi ñu ngi koy félicité di wax ne comme li ma waxoon fii rek balaa combat bi noonu naa leen maam baal mooy favori parce que moo ëpp expérience moo njëkk a comme combat au niveau yi mu bëre mbay bëreegu woon ko mais mbay nag mu ngi gis naa ci moom démb kani mu ngi bëgg dugg ci haut niveau parce que bëgg cee dugg mooy li mu doon li mu doon waxee ci signature contrat ak open press am bëreewul noonu bi mu ñëwee hélas leneen la bëree dafa ñëw jox combat bi temps parce que xam na ne kii muy bëreel ndaanaan la te liggéey na mu jox ko temps ba am li mu bëgg da ko exploité defe naa nag booy dem haut niveau noonu ngay bëree mooy li soq def ak gàmmu gay kera waaw boo bëggee dem au niveau dafa am fa ba fa tolloo lamb da koy da ngay xam ni nga koy bëree mbay guy gi loolu la wane démb bi mu amee li mu bëgg tamit xaaru daf ko exploité daan ko jëlee bu rool bu leer kon félicitation dalal nañ ko dem ci micro Equivox wax na nag li mu bëgg waaw waaye nee na moom daal xam naa booy ñaa daal topp na ko waaye booy ñaa nag mbay xam naa fi mu nekk nii moom ca kanam waaye bëree gu ngeen ndax booy ñaa mu ngi ci ay combat yoo xam ne defe naa ne ah ña muy bëreel fi mu nekk nii moom yéen ñëpp a yemi licence nag di ay mbër waaye nag mbër mu ne am na ku le supérieur waaw te Boy Niang laa la supérieur ci côté boobu waaw loolu moom faaw nga nangul ko ko parce que sa mag Tapha Tine lay bëreel bu ci jógee war a bëre ak Balla Gaye numéro 2 kon kooku dese na la ab liggéey pour nga man ko fekki donte nag sa xel na ne ci moom ngir bëre ak moom waaye la ma la wax bii itam bàyyi ci xel de sa diggante ak Youssou Ndour combat di waaw man de loolu gis naa ko mbay guy gi Youssou bu Balla Gaye daa daan bébé julde nga daan maam Balla loolu neexee tamit man de loolu gis naa man maa ko tudd ci kanamam waaw di ko félicité waaw di wax ne loolu moo amoon ci weekend bi hélas ñu jëmaat ci weekend boo xam ne tamit làmb kese lay doon mu war a commencé sax àllarba ginnaaw suba ah arène nationale ñu ngi production tournoi bi mu ne leen ko wax Yankaw Junior Kaw euh, Gourné Albarka Kayre ak ki nga xam ne nii moom moo di caatu Daouda Fall waaye Ronaldinho ak euh, Koña 2 moom mooy tête d'affiche ba kon loolu nañ si bàyyi xel àllarba lay am samedi tamit caatu Yarax ak ki nga xam ne nii moom moo di Zal ah, ak ki nga xam ne moom mooy Baba Diaw Fallou Ndiaye tamit andil ñu ay combat yoo xam ne yu neex a neex la ndax Boy Niang numéro 2 mi ngeen xam école Balla gay ak doomu Jalaaw bu Tëngéej bu Kaay Baax loolu tamit day am bébé bismi ak papa booy jinne ah Fallou Ndiaye tamit vraiment andeeti na lu neex ci arène euh, ci ci làmb ji ci samedi ji bët set prince Sissoko ñëw sëtul suñu di Sissoko ci diggante Modou Dia bu Yoff ak caat bu Boy Bambara bu NGB ñaari télé Grand Dakar muy kon làmb ji sàjj na fi mu nekk nii rek di ñaan yàlla promoteur yépp ku ci ne rek lépp loo si tëgg jublu ko maanaam génn sa def ko si yàlla na boo ci génn nga génn ceeg alhamdulillahi rabbil alamin jàmm ki sa topp ci loolu lañ di ñaanal parce que bu dul ñoom làmb du am les promoteurs kon maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre Equivox TV wala ngay suivre Babacar de am nag loo xam dama koy wax El dafa ma ñor trop parce que bon dafa am bëri démb ci ku ñuy wax zaal Ndiaye ñu doomu père Birahim Ndiaye parce que ndongolo dafa bëri ak Cheikh Tidiane Niang ba pare bi may tëj muy ñëwaat ci combat bi ci ni ñu bëree parce que bi ñu dawee jàppante ndongolo Cheikh Tidiane dafa mel lu ko tegal sees mel ni lu ko xar géppin bi ñu ko daan ko jël bu rey mu jaaxaan loolu laa ñëw di ko wax. da ne na da ko daan ba mu jaaxan te jaaxan boo amee ci lam moom lu ñuy mim amatu fa tëj sama micro bay dem ba génn ci biti mu dab ma yor otoom ak ay nitam ya mu àndal dama yow da ngaa far ni nga waxe waroo ne wax ma ne ko lu wax lool mu ne ah, parce que waroo wax ne daan nañ ko ba mu jaaxaan ma ne ko loo bëgg ma wax hélas mbër mu ñu daan mu jaaxaan noo koy waxe maam Balla mbay guy gi guddi gu ko dem daan dóor ko ci suuf lan laay wax ah ah giri de ëñul Abdou Diouf taf ko daan ko lu may wax leneen Modou bi muy bëre ak Eumeu Sène dóor ko mu daanu keneen lan laa wax du dama ne dóor na ko mu daanu Balla Gaye de bi muy bëre ak Modou Lo ah jàpp ko bës ko xeex ak moom bës ko jàpp ñaari ngewam yëkkati ko dóor ci lu ma wax lu dul lu lu passé loolu kon defe naa yéen ñi ànd ak mbëri encore une fois gën leen a am conscience bu tranquille gis nga nit sooy ànd ak moom bëgg ko indiwaat bëgg a jàppale ko ci carrière am du noon ngay ànde ak moom Sall maa ngi lay wax loolu di ko suma bopp nee nga dang danga may con da damay déglu da nga nga ma doon critiquer mais yow critiquer wu ma da nga ma accuser accusation ak critique c'est pas la même chose accusation mooy danga ngaa far mooy li nga ma wax da nga ne ma damaa far loolu mooy da nga ma accuser critique nag mooy da nga may wone ma Babacar nii nga waxe wala nii nii wala naa ma xool sama toogaay loolu bañu ma ko parce que loolu laay xaar chaque jour fii ma toog am na loo xam ne xaw ma ko ci ñi may suivre ñoo ma ëpp xam-xam foofu nag encore une fois Babacar moom la mu waxoon lay waxaat amul koo xam ne nii mën nga fexe fexe fexe fexe ba ni may doxale ci làmb di ko reporter samay combat nga wàññi ma ci yota non non non parce que amut lu may tiit wala lu may ragal parce que li tax loolu mooy du ma tooñ du ma wax lu ma xamul du ma dugg ci su suma su ma yonnewul et puis tamit du ma manqué kenn respect te yooyu ku ko jëmale ci man ma delloo la ko ba mu mat sëkk ak koo mën a doon nag barke alxuraan képp ku jëmale ci man manque de respect ak manque de considération dama la koy delloo ba nga xam ne delloo naa la ko kii que ce soit nag laa ci yemale. loolu dama la ko doon wax pour nga xam ko di ko wax ñu ñuy suivre di balu ñëpp àq nag di bal ñëpp àq di wax ne loolu ñun duñ ko bañ dinañ ñu ko wax mais façon fam fam ma ko waxee moo garaaw ci biir mbooloo ay nit taxaw nga nag say mbër su ma noppi wala su ma noppi woon ñu ne loolu dëgg la moo tax dama taxaw waxante kook moom Père Birahim déggante nañ ci papaam mooy suñu suñu papa di kilifa gu baax moo koy nuyu di ko ziar di wax ne loolu dama ko doon leeral rek parce que olof ne fa yow du man yeggu fa waaye wee du ragal dindi tuuma la man awma ku may faral man farum far farak ñoom mooy dama leen di liggéeyal ñu may fay du leen parpar lool maanaam parpar lool mooy di leen jàppale ci lu dul dëgg xalaatuma ko amul ku ma ko jaral du ma ko defal kii que ce sama liggéey nag dama koy def ci kàttanu yàlla di déglu tamit ay conseil ak ay critique parce que loolu mooy tax ma persévérer avancer dem ci kanam di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm hélas di la bégee mais di nuyu tamit borom huile Zador Abdou Aziz Alé Ndiaye maa ngi lay bégee bu baax di la ñaanal jàmm yàlla na sa jàmm yokku waaw maa ngi koy di wax ne gars yi tabaski gi ñëw na huile bu leen ko fàtte moutarde jaak ñoom seen yooyu yëpp dem leen ngeen jëndi ko parce que nag mooy gën ci waañ yeeg ci ni ni nii ñëpp ñi jàppale rawatina waa Petersen ah ak waa Ndaw Couture maa ngi leen di bëggee ah ñoo ñu nga benn ñoom tam ay tër yu mën a ñëw lañ macha allah sama booy boobu dëkk Bawol maa ngi koy bëggee bu baax baax Ndaw Couture waaye di nuyu tamit waa Ndondol production ñoom am nañ làmb hélas sax ñoom daal ndondol production daal sama commune nañ am lañ làmb waaye du nuyu sama maire commune maître sa jàmm yi ak suma xarit boobu sama mag jooju yow yal maa ngi ñaan lii moom maa koy assumer hélas Macky Sall bis bu joxee réew bis bu paree bay dem yàlla na mettre Pape Sène nekk président de la république loolu maa ko ñaan man Babacar loolu laa bëgg incha allahu rabbi parce que ñi koy xëccoog di ko wax ëpp ñu ko xam-xam gënuñu koo jub te gënuñu koo véridique mu gënuñu koo euh, nekk ci ab yoon loolu laa lay ñaanal mettre Sène yàlla na sa jàmm yàgg di nuyu di ñaan jàmm hélas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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk